parce que tay ñu ngi wax né pomme de terre bi dafa manqué pomme de terre bi amul may dalal sénégalais yi ne sénégalais yi pomme de terre mu ngi na fi gagne mu ngi na fi gagne du jeex ndax tay li ngeen gis yeen seen bët ñu nga xam ne dafa wara dem sur le marché dépasser na 80000 tonnes Sénégal nak seen rythme de consommation ni ma ko mëna waxé passé wul 15000 tonnes 15000 tonnes par mois donc ko am 80000 tonnes si stock fiex ak ben wer wala juróom-ñaari wer yaakaar naa war a mën a am si tiitaange muy euh, pomme de terre di soble soble bi sax niñ si mën a wax bari na ndax soble bi soo leen gisee sax ñun ñu koy produire c'est pour dañu ñëw en complément li nga xam ne ne moom la sénégalais yi di produire ndax ñooñu amuñu aussi capacité de stockage ce qui fait que ñun li tax sunu sunu sunu produit du yéex a génn loo gis rek waxtaan la entité chaque fois que suñu commencé suñu production buy démarrer octobre si nous au mois de janvier suñu nous dañuy de ak ARM ak concerné produits Nous ku définir la kañ ngay le kañ nangam ñun ñi nga xam peut-être suñu moyen d'utilisation beaucoup le petit producteur permettre pour alimenter marché chambre froide mais prix de régulation du marché nous fixé et c'est des prix souvent conseillés le prix bi passé il était de 330 francs le kilo loolu compte sur le marché ñun suñu paree dañuy yóbbu chambre froide xam ngeen cour de chambre froide ni mu méttee courant baa ngi fa da ngay fay personnel bi da ngay fay mais loolu yëpp su paree ñun duñu passé neuf mille sept cent cinquante fi mu nekk ni moom la ñuy jaayee saaku pomme de terre bu génn fii dem mais nag ku bëgg a dakaar Dakar ka fa faneen c' est vrai que di nga fay sa transport soo fayee sa transport loo ko ti jaay-jaay saagu pomme de terre waru mën a passé dix mille cinq cent ndax nag téeméeri dërëm ko ko am si saagu nekk am nga bénéfice loolu nag suñ ko defee dañu investir lu am solo investir mu ngi gis ci chambre froide yi ñu tabax chambre froide yi ay chambre froide euh, multifonctionnel la ay chambre froide yoo xam ne ne aussi euh, pour pomme de terre kese la multifonctionnel yi nag ñooy jël soble ak euh, pomme de terre loolu nag am nañ si lu bon bon bon juróom benn fii ñu nekk nii si mbaan ak yeneen ñaar yoo xam ne ñu ngi koy tabax am benn boo xam ne jam ñaajo la pour faciliter aussi li nga xam ne moom la ñu jaay biir Ndakaaru soo Swami Agri nag ñi fa nekk c'est des sénégalais direction bi yëpp

ndax lu yëngu fii ci coow mu ñëw waxtaan du def force du dóorle du ëpp doole négocier ba nga xam ne ñëpp day nekk ci un niveau. waxuma ko pour mu nekk de damaa ko ak suma diggante ak yàlla suma tiraay bàmmeel. duñu doon toog amuñu dara ba tool bii ñëw sunu kàlla yi nga xam ne dañu doon dem si àll biir dem ci taxawaal dañ doon ñëw ba ñu ngi liggéey. ku ñu wax yokkal da nga def. waaye ku deful du ñu ko waaye kan fukki at ak juróom maa ngi fii si biir tool bi man ak Alpha Sow amoon naa mille sept cent cinquante mooy doon xëy fii si wil si jigéen ñi bokkul ak góor ñi tool mi kese bokkul ak góor ñi jigéen kese jàmmal kese la ñuy ñaan si biir réew mi ndax tool bi mu ngi dox normal comme ni mu war a doxee nit ñaa ngi liggéey normal comme ni ñu war a ndax ñun suñu forage presque mu ngi mel na ñoom ñoo ko yore lu ci am problème ñoom ñoo koy réparé et eh, légui nak ñu ngi li sante société bi bu baax baax walu liggéey bi mom alhamdoulillah rabbil alamin ñu ngi si commencé gis suñu bopp bu baax baax euh, li nek sama ginaaw ni chambre froide la bo xamanteni da fay def ay semences semences euh, semences pomme de terre donc euh, capacité bi toll na ci 14000 tonnes donc actuellement euh, mooy objectif u Swami Agri mooy jàppale producteur producteur locaux yi donc au niveau de la zone des Niayes amnañu ben amnañu ben modèle amnañu ben modèle bo xamanteni donc dañuy jox chaque année producteur bi dañ koy jox ay semences bu ñu joxee semence donc bu bu bayee ba pare après ñu jël production bi parce que xam nañ ni donc producteur bi aussi dafay am problème aussi pour euh, dent sa production après après la récolte donc production boobu dañ koy jël bu euh, ko ñu au niveau de notre chambre froide bi nekk euh, bi nekk Diamniadio l'objectif principal aussi c'est que ñu jàppale aussi état bi ba nga xamante ni semence yi nga nous ni ñu ngi du doon dem donc du ko du ko importer donc ñu diminuer coût boobu parce que on sait que c'est c'est loo xamante ça coûte très cher à l'État. donc am nañu assez de produits yi nga xamante ni à la consommation muy pomme donc du soble pour rassurer sénégalais yi que ni fête yi di ñëw incha allah produit boobu ñuy wax ni dafa raar gars yi di ko déclarer pour yokk produit loolu doonul information bu bu dëgg wala bu avéré donc am nañ si stock bu doy bi nga xamante ni dañ ko indi marché Sénégal bi pour mën euh, sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo soxla produit boobu ñu mën ko ñu mën ko jëfandikoo kon mën nañu wax ni donc si façon bu leer que ni donc manam produit bobu doonul lu rare té que prix di prix ay spéculation la rek mais euh, ARM mom moy fixer prix et que prix yi fu mu nekkoon ba légui jógewu fa si xayma pomme de terre moom quatre-vingt tonnes dina disponible donc si si si si marché bi donc pour mën alimenter vraiment les besoins de donc des sénégalais donc gisal ngeen sen beut aussi tamit soble que ñing ci production bu baax soble du manquer parce que dafa doon produit bi nga xamante population locale actuellement nous avons ñu ngi stock bu doy donc en dehors nous aussi nous am nañ stock bu doy mais aussi nous, généralement su fekkee population locale yi ñoom seen soble ñor nous ñun du ñuy bind ñun ñu garder suñu donc nous am nañu ay chambre froide mën nañu am nañu capacité de stockage nous avons denc bu demee ba produit bi donc le ministère donc en collaboration avec ñi nga xamante ni ñoom lay liggéeyal mu wax ñu génnee produit yi fixer prix bi pour ñu envoyer le marché donc en résumé pour pour rassurer nit ñi lu jëm si wàllu pombiteer ak soble loolu doonul li nga xamante ni dina manqué si feet yi nga xamante ni moom la ñuy moom la ñuy dëgmal